tëb ku tëb dal ci xal wala fi nee nañu dese na la weneenu tëbin yëral xët mu njëkk Les Échos coalition Yewwi Askan Wi seen manifestation yi ñu bëggoon def tey ji ci àllarba ji ci réew mi préfet yi réew mi yéenekaay bi nee nañu tere nañu yëpp muy ci Ndakaaru di ca Ziguinchor ca Kolda ca Risatol ca Sédhiou ak ca Tivaouane soo préfet yi réew mi wékk interdiction bi yéenekaay bi nee nañu moo de ci article L61 bu code électoral sax ci manifestation yi ngir yàq dëkk bi dëkk buy tàkk sawara wuy sël sëli photo boobee la journal L'As xëy indi ci xëtamu njëkk boole ceeg nag di ñu xamal ni opposition bi ci réew mi seen manifestation yi ñu doon wax ci àllarba ji yi tere nañu yëpp vox populi gis ne préfet yi dafa mel dañoo déggoo ci yëf yi ne fu waay yeewi yi bëggoon a fàkk manifester rek préfet yi réew mi nee nañ leen du ca dal li tax ñu aaye leen ko nag vox nee nañu daanaka yokku tiitange àllarbay tey jii moo di àllarba joo xam ne lu nekk mën naa xew ci réew mi bu changement de dernière minute amul suuf soo mel ne ku naan ñu bala ñu ciy nañu a ndax état ñu yegg foofe ne dafa mel ne waaye yeew yi dañoo nar a yolamal buum journal La Tribune di ñuy xibaar ne ay kilifa diine ak ay organisation religieuse yu nekk ci réew mi yoo xam ne ña nekk yëkkati nañu seen kàddu di ñaan pouvoir bi opposition bi ñu delloo seenum xel te ñoom régulateur social yooyu yéenekaay bi nee nañu seen woote gi tàbbiwul ci noppi tëx Walf Quotidien nañu li ñu tere leer ndax njiital parti Pastef di Ousmane Sonko bokk ci yeewi askan woote na conférence de presse tey ci yor yor manifesté yi fi woon keroog àllarba fukki fan juróom-ñaar ci weeru juin ñenn ci ñi jàppoon gàlloon leen tuumay complot contre état ak mbiri terrorisme ñu tolloon ci fukki nit ak benn l'observateur nee nañu seeni dossier procureur de la république jébbal na ko juge d'instruction bu deuxième cabinet bi li ci santaane moo di ñu mandat dépôt leen am nay ci yi yeneen juróom-ñetti nit ñu lancé ay mandat d'arrêt mu di waa ji di Aliou ñu gën koo xam ci dun xaaf Ousmane Diouf Yaya Cissé Khadim Ndiaye Awa Dia ñu naan ko Nadine Babacar Ba Ousseynou Dieynaba Seck di Akhenaton ak ñu naan Max Killuminati ñoom ñëpp ci kuréel gi di force spéciale la ñu bokk jotu ñu leen woon a da woon réer biir Sénégal gaal gi tàkkoon ci waaxi Kasumtini le témoigné 2010 ne wàññi nañu léegi fukki doomi aadama ak ñeent yu ca ñàkk seen bakkan libération di ko dëggal ba di ñu xamal ne ca la woon gu yeboo ni nit yu bëggoon a mbëkk wutali bitim réew bi ñu demee ba ci digg géej gi ci la gaal gi tàkk seppee nañu ci ndox mi fukki néew ak ñeent te bari nañu réer ba léegi ci ndox mi ndox mi ak musiba meneen nu mu jurati ba tey ci libération bil yéenekaay bi ay élèves yu doon def BFM bi ñu pare examen ca la ñu ci dolli ne yemul foofu ne élèves yu bari yu ne woon ca groupe ba léegi gisaguñ leen